Le groupe G8 Media, DigiClick, agence de communication, Charoui TV, la chaîne d'information, 44 Event Pro, la chaîne événementielle, www.charouiinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Ok, ñi ngi sant Yalla subhanahu wa taala mi nga xamné mo moo bind dund bind dee ngir nattuñu xol ci ñun kan mo ci gën rafet jëf ñu ngi julli sërmal ci rasul muhammad sallallahu alayhi wa sallam koy bëgg miin mooy ñu naan les corps inconnus mooy néew yi nga xam ne dañoo faatu te kenn xamul seeni mbokk loolu la ñu fiy taxawee moom ay mbokk yoo xam ne dañuy volontaire kenn fayu leen dara waaye dañ koy def fii sabilillah ngir ñëw taxawu leen ndax lii su fekkoon ne ñii dañoo faatu kenn taxawu leen julli ci am bakkaar maadaama am na ñu leen taxaw rek day wàcc ñeneen julli ci loolu mooy fardu kifaaya kon loolu ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa mbokk yi nga xam ne ñooy taxawee loolu yàlla yàlla fay leen ngeen di fay ñi fi ñëw tam nga xam ne sàkku tiyaaba sàkku yiw moo tax ñu ñëw fi tiyaaba yi ñu ci yàlla na leen ko yàlla defal ndax ku ne xam nga ne lii moom des ciy defaroo lii day defar sa xol waaye dalay may ay tiyaaba yu baree bari ndax ku ne xam nga ne benn néew rek boo fekkee fu ñu waajalee benn néew sangu ko jullee ko sul ko am nga ñaari montagne Uhud xiraatay ni léegi boo jëlee 47 néew yi 41 néew yi nga y 37 bébés. 37 bébé ak 7 yo xamné ay il lañ ak 4 yo xamné ay goor lañ soko y mu 41 xam nga bu ñaari montagne uhut lolu ñaata la ku xam montagne uhut ni mu toll ak ni mu a Tiaba yu toll y mo waral mbokk yi y nelaw lu euh, bu tay ndax li ci yéeme mbokk yi mooy bébé bébé nag lay nekkee inco bi man de man jaaxal na ma franchement parler man jaaxal na ma bébé ah yàlla moo xam nag <laughs> yàlla moo xam mais bébé bébé xanaa kay jógul ci asamaan daal ci kaw suuf mën nañ comprendre mag sax xëy na boo xam ne mën nga dox dañ mën nañ comprendre mais bébé subhanallah hada sayyidun ajib mbokk yi li mbir mu yéeme la lii lu ñu war a gëstu la lii li ñaan yaa angi suros yaa angi suros yaa quelque chose lii nag autorité dañ cee war a jóg ay nit yu faat kenn xamul seen identité loolu lu yéeme la mbokk yi kon lii lu ñu war a def baas la gëstu ko ba xool mbir mi fan la lan moo ko waral kon loolu ñu ngi interpellé autorités yi ñu xool ko bu baax a baax ba xam la moo ci nekk ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala néew yi ñu waay jule yàlla na yàlla yërëm leen jéggal leen ndax ñii de man dama naa am nañ sens ñii kenn xamu leen ñu fi ñëw ñëpp kenn xamu leen dañu fi ñëw ngir yàlla rek te gis fi ay jëmm yoo xam ne am nañ njot bu rafet ñoo ne bu ñu ñaanee yàlla yàlla nangu ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam na nit ki bu faatoo ñeent fukki nit yu dul bokkaale yàlla subhanahu wa taala bu ñu la tiimee di la jullee bu ñu ñaanee yàlla daf koy nangu te loolu ñu ngi koy am njott bu rafet ci mbooloo mi yàlla na yàlla nangu ko yàlla na yàlla yërëm leen yàlla na yàlla dëgëral seen lam bu ñu duggee seen bàmmeel bu leen malaaka bi laajee ñu mën a tontu incha su ko defee mën nañ jublu si si julli bi incha Allah, Allah, Allah. الله أكبر uh, Oustaz jiite mbooloo mi nga xam ne ñooy toppatoo ñi nga xam ne ñoo faatu te seen mbokk yi gisuñu leen. liggéey tey bi day ñu ngi amoon tey hôpitalu Rouen bu dee bu amon amoon nañu fa ñeen fukki doomu aadama maanaam ñeen fukki bakkan ak benn ñu xëyee suba sana xëyoon suñu borom defal ñu toppatoo ñëpp ne ko lislaam santaane kenn par kenn na mu gën a rafetee kenn ku nekk lislaam la mu santaane ci ñu defal la ko ci wàllu càngaay gannaaw ba ñu la sàngee dugala ca oto yu mucc ay indi leen be fi ci armal yof julle len moy ñaanal len jàbbi leen seen borom loolu moy liggey tay ji su nga su ngeen deglo eliman bi xawna ko jinjuf manam inconnu ni euh, lire mom mbir mu mbir mu yéeme la te buñu xolé jamono yi manam day melni ki ñom ñu gëna bari sax mag ñi xam nga so so so soo fan fanweeri baket ak juroom ñaar lepp nek lire ñooñu sànniwuñu seen bopp mënuñu dox demuñu dikkuñu xanaa kay ay doomu aadama ñu leen def inconnu ñu leen jur sànni leen di yooyu nag di façon yi lay amee benn ki jur jur sànni ci mbedd mi ñu for yóbbu hôpital kooku may benn bi ñaareel bi itam mun na nekk hôpital juddoo fa bakkanam war defoo ci biir hôpital mu bàyyi fa liir ba ñu ne ko demal demal ñëw jël sa liir war a fay mu bàyyi ko fa. kooku mu ñaareel bi ñetteel bi itam nit ki mën naa maanaam mën naa entre hôpital fekk dafa nekk jigéen wérul suñu borom dogal mu am fa doom bakkanu xale bi des fa mu nekk fay mu am lu mu war a fay amal ko bi fay boobu mu war a fay ko dina jaral ñu bàyyi fa liir loolu ñetti anam yi liir ci la ñu nekk hôpital liir moom liir mu ko waaye ñoom seen yoon nekku ci defuñu demuñu dikkuñu waaw loolu nag wax dëgg yàlla euh, lu ma ta xool la lu ma ta lijjanti la comme ni ko imam bi waxee léegi mbir mu yéeme la waaw mbir mu doy waar la. waaw liggéey bi day wax dëgg yàlla euh, du ma ne métti na ndax ala kulli xaalin moom mu neex mu naqari ko gën àddina fokk ñu toppatoo ba jébbal sa borom kon su amee coono itam dañ koy nangu rek te ñu xam ne noonu la mën a demee euh, boobu ak tey nag sooy xool li ñu am ci ay ay bakkan nekk na mille quatre dafa naa loolu mooy junni junni bakkan ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk tey ji ñu nga xool junni bakkan yoo xam ne dañuy xëy faatu te kan xamul leen loolu loolu yéemewul junni laa wax de maanaam say xool ñaari junni yu manqué tuuti booy xool encore ni ko mbokk moo xel léegi semaine bii ñu nekk nii si benn semaine bi ak bi ci ginnaaw lu li yéeme mooy amul benn dimanche boo xam ne bi day boot mën na mu nekk sa doom wala mu nekk sama doom wala mu nek waji wala ku meuna doon lolu am ngor ko toppatoo ba jëbal ko boromam coono yang cey daj ngeen bal ma àq ba jël ko boromam lu ne di ko def te day and ak ñu jappale la koku benn bil la ñaaral bi mam lo koy waajale ba jëbal ko boromam yan moy ngay am ba wajal ko mu nek ay mbir mbir yoy yep nak suñu borom dogal na ñun ñokoy gallo mu dess nak la wara la wara sul lu mat ñeen fukki nit ak ben moy fan la wara a néew bu nek say xol soko don wadjal tay tay warko war ko wadjal kenn ku nek nga war ko wadjal ba jël ko boromam wala ko dem ben journaliste soko momon sa kay bo defal ndànk so paree diga li ngay ñak bu ñu ko mën tudé ñak dina mot 100000 francs waye ñoo ñu am ci ñiin yëpp tay li ñu ko wadjal ñan fan lañ ñu koy jëlee fi ñu koy jëlé suñu borom dembalé nañu ba suñu poste ak jullit yi nga xamné bu ñu dégg annonce bi kenn ku nek lamb sa poos rawati na jigéen ñi mbokk yi na jigéen ñi. jigéen ñi jigéen ñi li ñuy def ci liggéey bii góor yi jàmbale mais jigéen ñi liñ ciy def genn wàll bi soo ko xaajee ñett fekk fa góor kon nañ leen di ñaanal yàlla lool nag ñaan suñu borom fay leen tiyaay ba na ma gën a bare waaye nag bëggoon liggéey bi daal képp ku ci dugal sa loxo def nga ko fa ko war a def dugal nga ko fa ko war a dugal. li ñuy xaar ci nguur gu bees gi gis nga nguur gu fi jógee mm-hmm. nekk nañu ak ñoom lu ma dix ans fukki at. deug mo neex yalla amul lenn lo xamni li baye nyom koon na ci ñom ñëw ci ñun nguur gi la wax de amma première dame Marème Faye Sall kooku moom dañ ko wax gàcce ngalama koku bo gisee tey ñu mën a liggéey tey lépp ñu auto yi ni lepp lepp lepp lepp lu la lepp lepp lu ñoré yore mam moom la ko kon nguur mës ñu wax dara ci àddina dara diru 10 ans te ñu ngi doon liggéey boo ñu joxoon nag wala mu jàpp ci dañuy nangu dañuy jël waaye nag mësuñu ko jox mm-hmm. ah terewul loolu moom xëy na yàlla moo dogal loolu mm-hmm. nguur gi bees bi itam lii bind ay leetar ak laa ay message ak ñoom ñoo ñu gën a xam lii mooy lan xam nañu ko bu baax a baax mm-hmm. xam nañu ko bu baax ba état amul lenn loo xam ne lii ëmp bu ñu ñëwee dugal ci seen loxo alhamdulilah lu ñuy nangu la lu ñuy gërëm la lu ñuy kontaan la lu ñuy te loolu moom lu leen war la gis nga li def nii ñoom la war ñoom la ñu jàppale buñ ci dugalee seen loxo jàppale ñu alhamdulilah te jàppale ñu mooy jàppale peuple Sénégal rek du ñun ñun laaju ñu xaalis boo xam koy jox ñu koy suñu poos déedéet li ñu laaj mooy ñu jox ñu ay moyens mooy yoo xam ne su amee koor yi ñu ubbil jàmm ak la ñu laaj kon nag liggéey baa ngi ni ñoom xam nañu ko gis nañu ko incha allah buñ ci defee alhamdulilah te loolu lañ seen séntu ci ñoom loolu rek la Le groupe G8 Media, DigiClick, agence de communication, Charoui ITV, la chaîne d'information, 44 Event Pro, la chaîne événementielle, www.charoinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous!